Babacar Diop di président parti bii di les force démocratiques et sociales bu Sénégal léegi war moom daal rafetlu naa dogal bi conseil constitutionnel jël ngir bañ a toxal élection présidentielle yi ginnaaw ba président Macky Sall xamle ay bés ci ginnaaw. président de la république Macky Sall aussi mënul lool muy décision bu historique muy décision boo xamante ni gën na dëgëral suñu institution yi. muy décision boo xam ni gën na dëgëral suñu république muy décision bu nga xamante ni ñi nga xamante ni demoon nañ bay xaddi ci justice ba amatuñu woon yaakaar ci justice amatuñu woon yaakaar ci suñu magistrature amatuñu woon sax yaakaar ci conseil constitutionnel décision boobu nekk loo xamante ni ñi nga xamante ni démocratie yëpp ñor na leen Sénégal ñor leen république ñor leen. ba tax na njiital gëlwaar yi jàpp nañ ne war nañoo am ab transition ni mu gën a gaawee waaye ci jàmm. ak salaama ngir gën a dooleel démocratie ci même réew. mi ngi tegu woon rek ci bakkanam mi ngi tegu woon rek ci jaay doole waaye transition boobu aussi war nañ ko gérer noo xamante ni ah ki nga xamante ni moo nekk ni président de la am na statut ndax institution bi gën a mag ci réew mi mooy institution président de la république ndax président de la république institution la moom moo jiite institution boobu kon war nañ ko may porte de sortie bu honorable boo xamante ni duñu ko toroxal. ndax suñu ko toroxalee suñu institution la ñuy toroxal suñu ko toroxalee suñu réew la ñuy toroxal suñu bopp la ñuy gàkkal ndax aussi lu manti xew moom jiite na Sénégal lu mat fukki at ak ñaar. Babacar Diop xamle na tamit ni moom d'accord na ci waxtaan bi nga xamante ni kii di président Macky Sall woote na ko te moo ngi ñaax acteurs politiques yi ak société civile yi ñëpp nangu bi la waxtaan. ñun FDS les Guelwaar dialogue boobu dañu koy suuxat. dialogue boobu dañ koy taxaw dialogue boobu dañu koy encourager ndax dialogue la boo xamante ni mën na indiwaat dal ci réew mi waaw mën na indiwaat dal ci réew mi ndax fitna moom bariwul lu mu mën a jur ginnaaw askan wi am na taxawaay ba yegsi nañu fii ba moom li wóor ba wóor mooy le 2 avril la mandaam di jeex ñu mën ko gunge ak mat gu mat sëkk sëkk. ngir waxtaan boobu lay antu faaw ñu bàyyi détenu politique yi nekk ci kaso yi ki ci mel usmaan Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom ndax ñu ñu war nañoo mën a bokk ci élection yi dem campagne yi seeni ay morom bu Sénégalais wóolu rek mu jiite ñu ba tax na bile dialogue sax occasion la ngir Macky Sall am génn bu rafet maanaam ab porte de sortie bu honorable